Bienvenue sur Salam Vision. Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez le programme de Salam Vision. Voici une synthèse de l'actualité à la présentation signée Chapeau En prélude du Conseil présidentiel prévu ce euh, sous la présidence du chef d'État concernant l'emploi des jeunes, les États-majors affûtent le ZAN. Euh, C'est prévu demain. Il est convoqué euh, toutes les de jeunesse pour échanger des informations envisager des solutions concrètes et idoines euh, sur la situation des jeunes au Sénégal. Nous nous y reviendrons autour de débats ici à la Salam euh, C'est toujours l'émotion et la consternation liées à la pratique. Un accident mortel s'est déroulé, euh, disons, sur cette route qui continue de tuer des personnes. Euh, six morts, imaginez-vous, 45 blessés ont été évacués à l'hôpital régional de Fatick euh, c'est toujours le choc et l'indignation le madame le gouverneur s'est rendue sur les lieux les autorités administratives ont condamné vigoureusement ces accidents au niveau de la circulation euh, hier c'était la célébration de la journée nationale des talibés euh, plus de 5300 talibés errent dans les rues de la capitale des dispositions seront prises pour assainir euh, cette situation qui est devenue anachronique et problématique. Euh, Reporters sans frontières a publié hier euh, euh, que le Sénégal fait partie des 149 pays. On parle de la liberté de la presse. On peut dire que la presse est, est, dans ce pays, selon Reporters sans frontières a déclaré son représentant Hassan Diagne à Dakar. Nous allons rendre euh, à N'Djamena, c'est toujours l'indignation, après la mort d'Idriss Déby, c'est son fils Mohamed Déby qui va diriger euh, le de transition dirigé par les généraux de l'armée. Euh, c'est pour, prévu pour un an et demi en attendant d'organiser des, des, élections euh, présidentielles et transparentes. mbokk yi asalaamaaleykum ñu tënk ko si kàllaama Kocc Barma Euh, démb la màggal di jëm si journée nationale bi talibé boo xoolee euh, ëpp na xam ne taxawaayu si mbedd Dakar yi ak di ko wër jël ay matuwaay yoo xam ne woon fi jëlee talibé yi ñu mën leen euh, toppatoo mu gën a gawe li jëm si mbirum xibaar accident bu métti fële ci Fatick démb juróom-benn doomu aadama yoo xam ni. Euh, ak ñeent fukk ak juróom benn yoon ñoo fi nekk i vacances nekk na mbir mu métti métti mi nga bu Fatick ak autorité administrative ñu ngi ñaawlu accident yi nga xam ne moom fële yaa fële ca yoonu euh, Fatick. Euh, li jëm si mbirum xibaar xam ngeen ni Sénégal jur moom moo jël juróom-ñeenteel juróomi ñeent fukk ak juróom-ñeenteel place jëm si mbirum xibaar xam na ko mooy reporter sans frontière mais dafa Euh, mbokk yi ñu ngi doxantu fële ca bitim réew euh, fële ca Tchad ko gomee euh, dem ki ngi Idriss Déby nekkoon fi président bu Tchad ñu koy jëbal si teewaay ay kilifa yu tàkk yoo xam ni fële ca Djamena xam mooy conseil militaire de transition benn doo bu ñuy wax Mahamat Déby moom mooy jiite transition moom lëkkaloog ay généraux yeneen xibaar mbokk yi jàngeen jëpp ëllëg incha allah